dëkk bu sell bii nag di Touba ci atum 1888 nag la ko ko baax ki Serigne Touba Xaadim Rasool sanc waaye laata muy sanc dëkk bi waajuram wa Mamor Anta Sali Mbacke mi ngi génn àdduna ci atum 1882 ci Mbacke Kajoor ginnaaw ñu ko jébbalee boroomam ci dëkk bii nag di déqale ay weer yu néew nag lañ ci teg Serigne Touba Xaadim Rasool nag taxawal li ñu tudde nag yoonu murit ci dëkk boobu nag di Mbacke Kajoor ab diir bu néew itam nag la wéyal nag ci dëkk boobu nag di Mbacke Kajoor bàyyi koo fa nag ñëw nag ci dëkk bii mu feeñe jamono cosaanoo fi nag di Mbacke bawal sanc fi nag ay kër ngir nekk fi ci bi mu bi mu feeñe jamono nag di mbàkke bawal doon na wër nag pàkk bi bi waaye pàkkub daaru salaam bi nag la njëkk a gis ginnaaw bu mu sancee nag la tuxoo nag ci dëkk bi nag di mbàkke bawal nag ñëw daaru salaam ci atum 1886 ñaari at nag la def nag ci dëkk boobu nag di daaru salaam doon na wéel nag di seet nag pàkk di tuubaa bi mu gisee tuubaa nag ci seexul xadiim nag jox na ndigal nag ay mag nag ngir nag ñu gor dëkk bu sell bii nag di tuubaa Touba ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Omar Dia Layaabe sëriñ Joorka sëriñ ma Lamine Ndiaye sëriñ Ahmed Gueye Baba sëriñ Momar Bousso sëriñ ma Samba Bousso sëriñ ma Yaasin Ummi Dieng sëriñ Ahmed Maktar Dieng sëriñ Maktar Penda Dieng sëriñ Cheikh Abdourahman Lo sëriñ Aydara Mbacke sëriñ Momar Mbay Kala sëriñ Ibrahima Dieye sëriñ Omar Socé sëriñ Adama Sall fukki doomi Adama ak juróom yooyu nag la sëriñ Touba Xaadim Rasool joxoon ndigal nag ngir ñu gor nag dëkk bu sell bii moo ko defoon nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba soo delloo nag ci gëstu bi sëriñ Moustapha Lo moom sëriñ Daam Abdourahmane Lo def mi ngi wax ne nag fukki nit ak juróom yi nag ñoo gor nag dëkk bu sell bii nag di Touba fukki nit ak juróom yooyu nag ku ñu wax sëriñ Buuba Ja nag ma nga ca woon muy fukk ak juróom benn waaye sëriñ Buuba Ja nag ab rëbbkat la woon boo xam ne itam nag ku mii àll bii nag la loolu itam taxoon na nag sëriñ Touba Xaadim ko ci mbooloo mi ngir muy wan nag góor yàlla doon sanc si Touba nag pàkk bu mbooloo moomu nag goree dëkk bu sell bii nag di Touba ci ndigalul xaadim rasool bind na xasida gu ñuy wax Matlabul Fawzayni di ci ñaan bëgg-bëgg yi nga xam ne nii nag moom la bëgg nag ci dëkkam bu sell bii nag di Touba suñ boroom nag seetaanut ku baax ki Sëriñ Touba xaadim rasool ci ñaan googu nag mu doon ñaan ba tax na soo delloo ci Matlabul Fawzayni lu ci baree baree baree baree bari lu seexul xadim ñaan suñ boroom nag nangul na ko ko Touba bokk na ci dëkk yi nga xam ne nii daanaka moom lañ mujjee sanc nag ci réew mi waaye téewul nag lépp loo xam ne nii dëkk cosaan yi am nañ ko Touba am na lu ko duubul ci ba tax na da nga soxlaa jënd dara wër ko ci réew mi doo ko am soo ñëwee ci dëkk bu sell bii nag daa ko fi fekk danañ defaree nag ab produit ci mëneen réew mu bokkut ak Sénégal adressé ko ba bato itam dana jóge ci apport bu dul Sénégal te direction bañ cay def nag mooy ilaa Touba moo tax ci côté boo man di dem nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba toll na fa tolluwaay boo xam ne nii yéeme na ndax ñaanuk seexul xadiim ga dëkk bu sell bii nag di Touba li ko dale ci atum 1888 ba ci atum 1960 kenn lotise ko fu waay bëgg dëkk rek ngay dëkk li ko dale nag ci 1960 ca ñeenti fan ya ci weeru

2009 ba 2007 sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke moom it nattaat na dëkk bi ci lu tolloog nag 101000 parcelles muy téeméeri junniy kër ak benn kon nag li ko dale nag ci atum 1960 ba ci 2007 buñ boolee ñett natt yi nag mi ngi toll nag ci 201000 parcelles ñu mën koo xayma nag ci ñaar téeméeri junniy kër ak benn ci ñaar téeméeri junniy kër yooyu ak benn population bi nga xam ne ñoom ñoo ci yeewoo suñ sukkandikoo nag ci gëstu bi nga xam ne nii def nañ ko nag ci atum 2010 jigéen ñi nag ñi ngi tolloon ci 325 520 57 muy ñetti téeméeri junni ak ñaar fukk ak juróom ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar góor ñi nag ñi ngi tolloon ci 273 600 muy ñaar téeméeri junni ak juróom ñaar fukk ak ñett ak juróom benn téeméeri doomu aadama lépp lépp nag soo ko boolee nag muy góor ak jigéen ñi ngi tolloon nag ci 699 127 muy juróom ñeent téeméeri junni ak juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar ci xayma 2010 bi nag jigéen ñi nag ëppee nañ góor ñi nag ci fukk fukki junniy doomu aadama ak benn ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar waaye nag xayma biñ mujjee am nag ci 2016 bi góor ak jigéen nag ñi ngi tolloon nag ci juróom benn téeméeri junni doomu aadama ñoo yeewoo nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ginnaaw askan woowu ñu leen limal na ñoom ñoo yeewoo ci dëkk bu sell bii nag di Touba Touba nag ab village la village boobu nag kilifa yii nag ñoo ñi ko mas a jiite ku ñuy wax sëriñ Mor Rokhaya Bousso ginnaaw sëriñ Mor Rokhaya Bousso nag lañ ko jox nag ku ñuy wax sëriñ Abdou Bousso ginnaaw sëriñ Abdou Bousso lañ ko jébbal nag ku ñuy wax sëriñ Mor Gaye ginnaaw sëriñ Mor Gaye nag lañ ko jox Baye sëriñ Lo ginnaaw Baye sëriñ Lo nag lañ ko jébbal na ku ñuy wax sëriñ Ceerno Jaw ginnaaw sëriñ Ceerno Jaw nag lañ ko jébbal ku ñuy wax sëriñ Mewnu Jaxate ginnaaw sëriñ Mewnu Jaxate nag lañ ko jox sëriñ Habibu Rasoul Si ginnaaw sëriñ Habibu Rasoul Si nag lañ ko jox sëriñ El Hadji Jibi Njaay ginnaaw sëriñ El Hadji Jibi Njaay lañ ko delloowaat nag sëriñ Mewnu Jaxate ginnaaw sëriñ Mewnu Jaxate nag jamono ji nag sëriñ Abdou Lahad Jaxate moo ko yor kilifa yooyu nag ñooy kilifa yi jiite nag dëkk bu seel bii nag di Touba ci wàllu chef de village ba tax na nag dëkk bu seel bii nag di Touba ñaar fukki quartier ak ñeent nag ñoo fi nekk di quartier yu mag ci biir ñaar fukki quartier ñeent yooyu nag quartier bu ne nag da ngaa bootaat ay quartier nag yu nekkal ci sa biir nga di leen doxal ñu mën caa ràññee bi ñu tudde Touba Mosquée ñaareelu quartier bi mooy quartier bi ñu tudde Touba Daarul Xuddoosa ñetteelu quartier bi mooy quartier bi ñu tudde Touba Daarul Minnan ñeenteelu quartier bi mooy quartier bi ñu tudde Touba Guy Mbind juróomeelu quartier bi mooy bi ñu tudde Touba Xayra juróom benneelu quartier bi Touba Aslem ak Touba Mesra juróom ñaareelu quartier bi ci dëkk bu sell bii di Touba mooy bi ñu tudde Janatul Maxwa juróom ñetteelu ñetteelu mooy bu ñu tuddee daaru xalimul xabir di ndaam juróom-ñeenteelu quartier bi mooy tuubaa daaru mannaan fukkeelu quartier bi mooy tuubaa gede fukkeelu quartier bi ak benn mooy bi ñu tuddee tuubaa kër ñang fukkeelu quartier bi ak ñaar mooy tuubaa njaaréem fukkeelu quartier bi ak ñett mooy tuubaa al azar fukkeelu quartier bi ak ñeent mooy saamlaa fukkeelu quartier bi ak juróom mooy boqatul mubaraka fukkeelu quartier bi ak juróom benn mooy quartier bi ñu tuddee tuubaa bustaan arafa fukkeelu quartier bi ak juróom ñaar mooy tuubaa baxdaad fukkeelu quartier bi ak juróom ñett mooy tuubaa madiyana bi ak juróom-ñeent mooy Touba Guédé ñaar fukkeelu quartier bi mooy Touba Daaru Salaam Ndaam ñaar fukkeelu quartier bi ak benn mooy Touba Daarul Karim ñaar fukkeelu quartier bi ak ñaar mooy Touba Daarul Xadim ñaar fukkeelu quartier bi ak ñett mooy Touba Aliya ñaar fukkeelu quartier bi ak ñeent mooy Touba Daaru Salaam ci biir ñaar fukki quartier yeeg ñeent yooyu quartier bu ne nag daam am ay quartier yoo ëmbaat ca sa biir quartier bii ñu tudde Touba Mosquée lu tolloog ñaar fukki quartier ak juróom-ñett ñoo nekk ci biiram quartier bi ñu tudde Touba Daaru Xudos fukki ak ñaar ñoo nekkaat ci biiram ku ñuy wax Serigne Cheikh Ndiaye moo ko jiite quartier bi ñu tuddee Touba Daaru Minnan ñeenti quartier ñoo nekk ci biiram ku ñuy wax sëriñ Moustapha Mbacke Moussa mooy ki ko jiite quartier bi ñu tuddee Guy Mbind juróom-ñaari quartier moo nekk ci biiram ku ñuy wax Maawa Sàll mooy ki ko jiite quartier bi ñu tuddee Touba Xayra juróom-ñeenti quartier ñoo nekk ci biiram ku ñuy wax Saliou Gaye mooy ki ko jiite quartier bi ñu tuddee Janatul Maxwa ñeenti quartier ñoo nekk ci biiram ku ñuy wax Moodu Faal mooy ki ko jiite quartier bi ñuy wax Touba Daarul Mannaan juróom-ñaari quartier ñoo nekk ci biiram ku ñuy wax sëriñ Moodu Jóob mooy ki ko jiite ñu tuddee Gede Buso quartier ñoo nekk ci biiram ku ñuy wax Axma Lo mooy ki ko jiite quartier bi ñu tuddee Touba Kër Ñang fukki quartier ak benn ñoo nekk ci biiram ku ñuy wax Moussa Gueye mooy ki ko jiite quartier bi ñu tuddee Touba Al Azhar juróom-ñetti quartier ñoo nekk ci biiram ku ñuy wax Serigne Thierno Bousso mooy ki ko jiite quartier bi ñu tuddee Samla benn quartier moo nekk ci biiram ku ñuy wax Daam Xulle mooy ki ko jiite quartier bu ñuy wax Touba Madiana juróom benn quartier moo nekk ci biiram ku ñuy wax Serigne Habo Mbacke mooy ki ko jiite quartier bi ñuy wax Salaam ku ñuy wax Ibra mooy ki ko jiite benn quartier moo nekk ci biiram fukki ak ñeent yooyu ak quartier yooyu ñu leen limal nag tañ bootu ci biir ñaar fukki quartier ak ñeent yooyu soo ko boolee nag mooy Touba Touba googu nag ci atum 1976 te juróom-ñaari fan ye ci mois de juillet ba lañ ko def nag ab communauté rurale communauté rurale bu Touba nag kilifa yii nag ñooy yi ko jiite 1976 ba atum 1983 ku ñuy wax Thierno Dieng moo ko njëkk a jiite ginnaaw 1983 ba 1986 di ñaareelu kilifa nag gu jiite communauté bu Touba mooy kuñ doon wax Serigne Mor Seck ñetteelu kilifa nag bu jiite dëkk bu sell bii nag di Touba ci wàllu communauté rurale mooy ku ñu doon wax Serigne Mewnu Jaxate moo ko jiite ci 1986 ba 1996 ñeenteelu kilifa nag gu jiite dëkk bu sell bii di Touba ci wàllu communauté mooy ku ñuy wax Serigne Cheikh Béthio Thioune moo ko jiite ci ba ci atum nag nguur gi fi newoon nag mbooleem réew mi nag yóbbu woon na ci commune yi nag liñ tudde ay délégation spéciale délégation spéciale yooyu nag commune bu Touba mucc ci 2001 2001 ba 2008 Makhtar Jaxate nag moo ko jiitee ci wàllu président communauté rurale 2008 2010 Serigne Mourtada Mbacke ibnu Alaaji Baara Mbacke Falilu ginnaaw Serigne Mourtada Mbacke moom Elaaji Baara Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ku ñuy wax Abdoulahat Ka nag mooy ki ko jiite Abdoulahat Ka moom nag moo ko jiite nag ba ci atum 2014 ci 2014 nag la Touba jóge nag ci communauté rurale dem nag ci commune commune boobu nag Abdoulahat Ka nag mooy ki ko njëkk a jiite ci bëccëgug le 16 juillet 2014 14 ginnaaw dëkk bu sell bii di Touba bu mu nekkee commune nekk fii itam commune rurale nekk fii itam nag ab village ci atum benn quartier bu bokk ci biir Touba ñu koy wax Daaru Halimul Xabiir ñu gën koo xam ci ndaam lii di autorité administrative bi fi nekk defoon na na quartier boobu nag nekk ci biir Touba ab arrondissement arrondissement boobu nag kilifa yii nag ñoo ko jiiteegun li ko dale ci atum 1960 ba 2016 muy ku ñuy wax Mouhamadou Magay Gay moo ko njëkk a jiite ci atum 1960 ba ci atum 1965 ñaare ñaareelu kilifa gu jiite nag kër googu nag di sous bu ndaam muy ku ñuy wax Mouhamadou Saliou Fall moo ko jiite ci 1965 ba atu 1970 lu kilifa gu jiite nag arrondissement bu ndaam boobu muy ku ñuy wax Mouhamadou Magay Gay daa dellusiwaat nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci atu 1970 ba atu 1976 ñeenteelu kilifa nag gu jiite dëkk bu sell bii nag di Touba ci wàllu administration ci ñu tudde nag sous préfet mooy ku ñuy wax Badara Ndiaye moo ko jiite nag ci 1966 ba atu 1980 juróomeelu kilifa nag gu jiite nag kër googu nag di sous préfecture nag bu ndaam mooy kuñ doon wax Babacar Ibrahima Bayo moo ko jiite nag ci 1980 ba atum 1982 juróom benneelu nit nag bu jiite kër googu nag mooy kuñ doon wax Massamba Sall moo ko jiite ci 1982 ba 1983 juróom ñetteelu kilifa nag gu jiite kër googu mooy kuñ doon wax Ahmed Birane Sy moo ko jiite ci 1985 ba 1990 juróom ñeenteelu kilifa nag gu jiite kër googu nag di sous préfecture bu ndaam Ndaam muy kuñ doon wax Moustapha Mbuupa moo ko jiite ci 1990 ba atum fukkeelu nit nag bu jiite nag kër googu nag du su préfecture bu Ndaam mooy kuñ doon wax Ahmadou Dieng moo ko jiite ci 1990 ba 1994 fukkeelu kilifa ak benn nag bu jiite nag arrondissement boobu nag mooy kuñ doon wax Al Ousseynou Diallo moo ko jiite nag ci 1994 ba 1998 fukkeelu nit ak ñaar nag bu jiite kër googu nag mooy kuñ doon wax Abdou Cissé Kébé moo ko jiite nag ci 1994 1998 ba atum 1998 fukkeelu nit ak ñett nag bu jiite kër googu mooy kuñ doon wax Ousmane Diop moo ko jiite ci 1998 ba 2000 fukkeelu nit ak ñeent nag bu jiite kër googu mooy kuñ doon wax Samba Ndox Ba moo ko jiite ci atum 2000 ba 2003 fukkeelu nit ak juróom nag bu jiite arrondissement boobu nag di Ndaam mooy kuñ doon baa Ba Fodo moo ko jiite nag ci 2003 ba 2007 fukkeelu nit ak juróom benn nag bu jiite kër googu muy kuñ doon wax Sidi Diouf moo ko jiite ci 2007 ba 2011 fukkeelu nit ak juróom benn nag bu jiite kër googu mooy kii di Samba Ndox Ba moom itam nag dafa dellusiwaat ci 2011 ba 2012 fukkeelu nit ak juróom ñett nag bu jiite kër googu mooy moo Modou Mbacke Fall moo fi nekk nag ci mois de février 2012 nag ba nëgëni kon nag ci wàllu administration ci kër gii nag ñu tudde su préfecture fukki kilifa nag ak juróom ñett nag la amagoon fukki nit nag ak juróom benn nag ñoo ko jiiteegoon waaye nag dafa am ñaari nit ñoo xam ne ni nag dañoo dem dikkaat nag ñaari yoon nag ci nag di ñu doon wax Mouhamadou Magaye Gaye da koo jiite ci 1960 ba atum 1965 dellusiwaat nag ci atum 1970 ba atum 1976 Samba Ndox Baye nag ci atum ba 2003 kon kilifa yii nag ñoom ñoo ko jiitee gun dëkk bu sell bii nag di Touba ci wàllu jaamu suñ borom Serigne Touba Xaadim Rasul nag doon na nag ci xasida gii nag di Matlabul Fawzayni di wax ne nag mi ngi sàkku nag ci suñ borom mu may ko nit ñoo xam ne nii moo xam góor ak jigéen duñ sàggane nag santaaneb seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam loolu itam nag tax na li fi nekk nag ci wàllu jàkk ak jumaa takku na lool ci biir jàkk yeeg jumaa yi nag lu toll ak ñaar fukki jumaa ak ñeent itam nag am na ci dëkk bu sell bii nag di Touba ak juróom-ñeent yoo xam ne ni nag ñi ngi koy liggéey nag te pareegul ñaar fukki jumaa ak ñeent yi nga xam ne ni pare na nag bañ tàmbali ci julli ajjuma ak juróom-ñeent yoo xam ne nag noppeegul nag ñi ngi koy liggéey jumaa yi nag mooy yii muy jumaa ji mag ji te nekk nag ci péncum Touba mi ñaareelu jumaa ji nag mooy ji nekk ci Touba Guédé nekk ci forage yu Baay Laat di jàkkay sëriñ Mouhamadan Jobe ñeenteelu jumaa ji mooy ji nekk kër sëriñ Murtada Mbàkke muy jàkkay sëriñ Murtada Mbàkke juróomeelu jumaa ji bi nekk Al Azhar Mbusoobe juróom benneelu jumaa ji mooy bi nekk nag ci université Al bi juróom ñaareelu jumaa nag jo am ci dëkk bu sell bii nag di Touba mooy jumaay njenne juróom ñetteelu jumaa ji mooy bi nekk nag ci Jannatul Maxwa juróom ñeenteelu jumaa ji bi nekk ci Touba Njaaréem fukkeelu jumaa ji mooy jumaa ji ñu tudde jumaay sëriñ Seex Saaliw fukkeelu jumaa ji ak benn mooy jumaay sëriñ Ibrahima Absatu Mbàkke fukkeelu jumaa ji ak ñaar mooy bi nekk ci péncum sëriñ soye bu mbàkke fukkeelu jumaa ji ak ñett mooy jumaa ji ñu tudde jumaay sëriñ moodu géey fukkeelu jumaa ji ak ñeent mooy bi ñu tudde golbee fukkeelu jumaa ji ak juróom mooy bi ñu tudde sëriñ jiili mbàkke mor docca fukkeelu jumaa ji ak juróom benn mooy bi ñu tudde sëriñ basiiru mbàkke moodu moor fukkeelu jumaa ji ak juróom ñaar mooy bi nekk ci daaru mannaan fukkeelu jumaa ji ak juróom ñett mooy bi nekk kër sëriñ ñaan jóob fukkeelu jumaa ji ak juróom ñeent mooy bi nekk ci taysiir ñaar fukkeelu jumaa ji mooy bi nekk saam ñaar fukkeelu jumaa ji ak benn mooy bi ñu tudde jumaay sëriñ mustapha ñaar fukkeelu jumaa ji ak ñaar mooy bi ñu tudde daarul karim ñaar fukkeelu jumaa ak ñett mooy biñ tuddee sëriñ ibra xujja xabbaan ñaar fukkeelu jumaa ji ak ñeent mooy biñ tuddee sëriñ xaadim mbàkke ifan ñaar fukkeelu jumaa ji ak juróom mooy biñ tuddee sëriñ daam turé madiana ñaar fukkeelu jumaa ak juróom benn mooy biñ tuddee sëriñ abdul aziz mbàkke daaru tanzil ñaar fukkeelu jumaa ak juróom ñaar mooy biñ tuddee sëriñ mbay sàll boobe réel ñaar fukkeelu jumaa ji ak juróom ñett mooy biñ tuddee sëriñ muntaqa mbàkke daarul minnan mooy jumaay daaru minnan ji ñaar fukkeelu jumaa ji ak juróom ñeent mooy biñ tuddee sëriñ yoro géey ci gedde buso fanweereelu jumaa ji mooy jumaay aliya fanweerilu jumaa ji ak benn mooy jumaay janatul maxwaa ji fanweerilu jumaa ji ak ñaar mooy jumaay buqatul mubaraka arafa fanweer bi ak ñett mooy jumaay isbu tarxiya fanweerilu jumaa ji ak ñeen mooy jumaay sëriñ murtada mbàkke ci tuubaa daaru xuddoos fanweer bi ak juróom nag ci wàllu jumaa mooy jumaay mbusoobe aaliya jumaa yi nag ñoo am nag ci dëkk bu sell bii nag di tuubaa jàkk yi nag mi ngi toll nag ci 543 jàkka di juróomi téeméeri jàkka ak ñeen fukk ak ñett nag ci dëkk bu sell bii nag di tuubaa ci bilan bi nga xam ne nii ci lañ sukkandiku ci 2008 huit juróom-ñeenti daaray alxuraan tim nag am na ci dëkk bu sell bi nag di Touba daaray alxuraan yi ñu leen di limal nag mooy daaray alxuraan yi nga xam ne nii mën nañu wax ne yeneen daaray alxuraan yi nekk ci alxuraanu sëriñ Buso Ilimaan daaray alxuraanu sëriñ Jatara daaray alxuraanu sëriñ Mor Sànqe daaray alxuraanu sëriñ Mayra Mbàkke Mbàkke daaray alxuraanu sëriñ Mor Gasama daaray alxuraan sëriñ Ibra Njaay Gédé daaray alxuraanu sëriñ Abdoulaye Jaxate Hamsatu daaray alxuraanu sëriñ Ahmed Fall daaray alxuraanu Baye Mor Lo daaray Kamil daaray alxuraanu sëriñ Basiru Sanosi daaray alxuraanu sëriñ Omar Njaay daaray alxuraanu sëriñ Cheikh Jaxate Tundoodi daaray alxuraanu Ndaam di kër sëriñ Ndaam Abdourahman Lo daaray alxuraanu sëriñ Cheikh Jaxate Amsatu daaray alxuraanu sëriñ Daam Buso Mbar daaray alxuraanu sëriñ Abdul Mujib Buso daaray alxuraanu sëriñ Elasi Jaxate Hamsatu daaray alxuraan nii daaray alxuraan lañ yoo xam cosaan lañ nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba teewul nag Touba kër gu ne nag am na daaray alxuraan ginnaaw daaray alxuraan yooyu am nag ci Touba liñ tudde nag ay daaray franco arabe wala liñ tudde nag ay école yoo xam ne day jàngale nag kàllaama gi nag di kàllaamay arab wala kàllaama gi nag di kàllaamay tubaab loolu itam nag am na fi nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba ginnaaw nag bu seexul xaddiim nag doon ñaan ci xasida bi nag di Matlabul Fawzayni ay jàngukaay nag yu am solo ndax askan yu fi yeewoo kan mën a am xam-xam yooyu nag seenub lim mi ngi toll nag ci fukki école ak benn école bu njëkk bi école privée Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñaareelu école bi mooy Al ñetteelu école bi mooy école islamique franco arabe Cheikh Ahmadou Bamba ñeenteelu école bi mooy école Cheikh Issa Dieng juróomeelu école bi mooy école Al Azhar Touba juróom benneelu école bi mooy école Almanba juróom ñaareelu école bi mooy institut islamique Cheikhul Khadim juróom ñetteelu école bi mooy madrasata Ali Yassir juróom ñeenteelu école bi mooy excellence Serigne Cheikh Mbacke fukkeelu école bi mooy école Cheikh Ahmadoul Bachir fukkeelu école bi ak benn mooy al azhar excellence Mouhamadou Lamine Baara fukkeelu école bi ak ñaar mooy al azhar bi nekk ci kër wele fukkeelu école bi ak ñett mooy école Miftahul Muna un fukkeelu école bi ak ñeent mooy école Miftahul Muna deux fukkeelu école bi ak juróom mooy Muurul Mahidi fukkeelu école bi ak juróom benn mooy école Serigne Mor Mbay Cissé fukkeelu école bi ak juróom ñaar mooy école Serigne Mor Penda Mbacke fukkeelu école bi ak juróom mooy école Serigne Salihu Mbacke fukkeelu ak école Serigne Cheikh Binta Mbacke ñaar fukkeelu école bi mooy école Serigne Cheikh Ahmadul Bachir Mbacke 3 ñaar fukkeelu école bi ak benn mooy école Serigne Bamba ñaar fukkeelu école bi ak ñaar mooy école Cheikh Mamadul Fadal Mbacke 1 ñaar fukkeelu école bi ak ñett mooy Ansaarullaahi ñaar fukkeelu école bi ak ñeent mooy Al Azhar bu Touba Guy Mbind ñaar fukkeelu école bi ak juróom mooy Baabul Rahmati ñaar fukkeelu école bi ak juróom benn mooy Baabul Rahmati 2 ñaar fukkeelu école bi ak juróom ñaar mooy Cheikh Ahmadou Mbacke 2 ñaar fukkeelu école bi ak juróom ñett mooy Cheikh Gaawaan Mbacke Mbàkke ñaar fukkeelu école bi ak juróom-ñeent mooy Cheikh Ibrahima Diop Almashari fanweereelu école bi mooy école Cheikh Mourtada Mbàkke weer bi ak benn ci wàllu école mooy Taxul Alxafaar weer bi école ak ñaar mooy Gaynde Fatma fanweereelu école bi ak ñett mooy Guy Ziyaara fanweereelu école bi ak ñeent mooy Institut Islamique Al Khalil fanweereelu école bi ak juróom mooy Madiana 3 fanweereelu école bi ak juróom benn mooy Miftahul Jannaati fanweereelu école bi ak juróom ñaar mooy Nuurul Almahadini fanweereelu école bi ak juróom kenn fanweereelu école bi ak juróom-ñeent mooy Serigne Cheikh Mbacke ñeent fukkeelu école bi mooy Cheikh Ahmed Bachir Mbacke ñeent fukkeelu école bi ak benn mooy Serigne Fallou Sarr ñeent fukkeelu école bi ak ñaar mooy maam Awa Bousso ñeent fukkeelu école bi ak ñett mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ñeent fukkeelu école bi ak ñeent mooy Cheikh Massamba Mbacke ñeent fukkeelu école bi ak juróom mooy Serigne Moudou Ami Fall ñeent fukkeel bi ak juróom benn mooy Serigne Moudou Ndumbe Mbacke ñeent fukkeelu école bi ak juróom ñaar mooy Serigne Mourtada Mbacke ñeent fukkeelu école bi ak juróom ñett mooy Serigne Mourtada Murtada Mbàkke Faliilu ñeent fukkeelu école bi ak juróom-ñeent mooy Sëriñ Fàllu Mbàkke juróom fukkeelu école bi mooy Nayrul Maraam juróom fukkeelu école bi ak benn mooy Kanzul Muxlisiina juróom fukki école ak benn yiina nag boole koog yeneen école yi nga xam ne nii nag amaat nañ fi nag ginnaaw bi ñoo am nag ci dëkk bu sell bi nag di tuubaa di jàppale Seexul Xadiim nag ci ñaan googu mu ñaanoon nag ci Matlabul Fawzeyni ngir dëkk bi nag boroomi xam-xam man di fi yeewoo loolu itam nag mu toll nii nag xam sell bi nag di Touba dox na ci nag ay jéego yu takkoo takkoo takkoo takku moo xam ci kërug téléphone yi moo xam ci sit internet yi moo xam ci rajo yi ba ci télévision yi loolu itam nag tax na nag kër gii nag di Sonatel Sonatel nag mi ngi fi njëkk a wàcce lu tollu juróomi lii ligne téléphone ci dëkk bu sell bi nag di Touba teg ko nag ci loxoy Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag séddale ko nag kilifa yi fi nekkoon jamono jooju Sonatel nag wéy nag di dox nag ci dëkk bu sell bii di Touba ba wutal ko nag kër gu fi nekk kërug Sonatel googu nag ñi ngi ko inauguré ci 1988 ku ñuy wax Alassane Dialy Ndiaye mooy ki ko njëkk a jiite boobaak léegi nag Touba mi ngi wéy nag di dox nag ci wàllu communication ba ci yeneen opérateur yi nekk Sénégal itam kenn ku ne nag am nga fi siège nag moo xam Tigo ba ci Expresso lii di Poste itam amoon na fi siège wala post itam am na fi siège ba tey di wàllu lettre ci atum 1976 la fi installé xeetu rajo yi itam moo xam télévision yi itam yu ci baree baree baree bari installé nañ ci dëkk bu sell bii di Touba ñu mën cee ràññee rajo bu ñuy wax RTI mën cee ràññee rajo bu ñuy wax RTS mën accompagner rajo bu ñuy wax Lamfal FM RFM Walfajri FM sid FM Zik FM Al Azhar FM Isbu Tarxiya FM Diso FM Jant bi FM Touba Fall FM Soxna faati FM Dunia FM seen International Benno FM RFI Océan FM Anour FM waaye nag ci biir rajo yi ñu leen tuddal nag am na ci rajo yoo xam ne nii nag doxatuñ nag ci dëkk bu seel bii di Touba ñu mën cee ràññee RTI man cee ràññee Al Azhar FM man cee ràññee Diso FM man cee ràññee Soxna Fati FM man cee ràññee Dunia FM man cee ràññee fréquence bi fi Océan Rafia FM amoon man fee ràññee itam fréquence bi fi Anour FM amoon kon yeneen xeeti rajo yi ñu leen tuddal yi ci des yëpp itam nag ñi ngi dox xeetu télévision yi itam nag amoon nañ fi ay fréquence wala lii di ay studio ñu man cee ràññee Touba Al Azhar TV Zik FM amoon na fi fréquence Ndigal TV itam amoon na fi ak Isbu Tarxiya TV ci biir fréquence télévision yi nag am na ci yoo xam ne nii doxatuñ ñu mën cee ràññee Al Azhar TV Ndigal TV ak Touba TV ak nag luñ tudd ay site d'information yu takkoo takkoo takku nag ci dëkk bu sell bii nag communication ci wàllu koom xeetu banque yu takkoo takku itam nag am na ci dëkk bu sell bii di Touba banque bu njëkk bi ñu mën cee ràññee CBAO muy compagnie bancaire des états de l'Afrique et de l'Ouest ñaareelu banque bi mooy Ecobank ñetteelu banque bi mooy Attijari banque ñeenteelu banque bi mooy BIS ñu gën koo xam ci banque islamique du Sénégal juróomeelu banque bi mooy CNCAS ñu gën koo xam ci Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal juróom-benneelu banque bi mooy B6 gën koo xam ci banque Sahello commerce juróom-ñaareelu banque bi mooy SGBS ñu gën koo xam ci société nationale des banques du Sénégal juróom-ñetteelu bi mooy BRS ñu gën koo xam ci banque régionale du Sénégal juróom banque bi mooy CMS ñu gën koo xam ci crédit mutuel du Sénégal fukkeelu banque bi mooy CPS ñu gën koo xam ci crédit populaire du Sénégal fukkeelu banque bi ak benn mooy Poste Finance fukkeelu banque bi ak ñaar mooy PEMECAS fukkeelu banque bi ak ñett mooy Banque Atlantique fukkeelu banque bi ak ñuy wax ACEP jàpp ñu gën koo xam ci alliance de crédit et d'épargne pour la production fukkeelu banque bi ak juróom mooy es ñu gën koo xam ci banque l'habitat du Sénégal fukkeelu banque bi ak juróom benn mooy UBA ñu gën koo xam ci unité des banques of Africa fukkeelu banque bi ak juróom ñaar mooy BNDE ñu gën koo xam ci banque nationale pour le développement des entreprises fukkeelu banque bi ak juróom ñett mooy banque bu ñuy wax Orabank fukkeelu banque bi ak juróom ñeent mooy dañuy yónnee xaalis bépp kërug yónnee kaayu xaalis ci Sénégal am na itam nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba kërug courant gi itam nag am na ci dëkk bu sell bii di Touba muy Senelec ci xayma biñ amoon ci atum 2010 lu tollu 52 500 abonnés ñoo amoon muy juróom fukki junni abonnés ak ñaar ak juróomi téeméer wàllu njënd njaay dëkk bu sell bii di Touba itam nag dox na ci nag jéego bu takkoo takkoo takku ginnaaw ñaareelu marché bi gën a rëy nag ci Sénégal muy marché Ocass Touba itam nag am na yeneen marché nag yu fi bootu ndax téeméeri quartier ak sàngam nag ñu ngi ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci téeméeri quartier yooyu nag ak lu topp quartier bu ne nag am nga benn marché wala ñaari marché marché yi nga xam ne nii nag ñoom ñoo valable ci dëkk bu sell bii nag di Touba marché bu njëkk bi nag mooy marché Ocass ku ñuy wax Serigne Sini mooy ki ko jiite ñaareelu marché bi nag mooy marché Daarul Xuddoos ku ñuy wax Pape mooy ki ko jiite ñetteelu marché bi mooy marché Guédé ku ñuy wax Talla ki ko jiite ñeenteelu marché bi nag mooy marché Guy Mbind ku ñuy wax Ousmane Mbeng mooy ki ko jiite juróomeelu marché bi nag mooy Xayra 2 ku ñuy wax Mañas Ngom mooy ki marché bi nag mooy xayra 1 ku ñuy wax Saliou Gaye mooy ki ko jiite ñaareelu marché bi mooy marché garage daaru ku ñuy wax Cheikh Diba mooy ki ko jiite juróom-ñetteelu marché mooy marché daaru Tanzil ku ñuy wax Thierno Ndiaye mooy ki ko jiite juróom-ñeenteelu marché bi mooy marché Ndaam Al ku ñuy wax Abdou Diagne mooy ki ko jiite fukkeelu marché bi mooy marché Mam Binta ku ñuy wax Badara Ndoy mooy ki ko jiite fukkeelu marché bi ak benn mooy marché gaar bu mag ku ñuy wax Cheikh Jonn mooy ki ko jiite fukkeelu marché bi ak ñaar mooy marché Olom ga ku ñuy wax Yuga Faali Jox mooy ki ko jiite fukkeelu marché bi ak ñett mooy marché njende ku ñuy wax Moodu Mbay mooy ki ko jiite fukkeelu marché bi ak ñeent mooy marché Mbusoobe ku ñuy wax Taala mooy ki ko jiite fukkeelu marché bi ak juróom mooy marché Kër Ñang ku ñuy wax Cheikh Issa Lay mooy ki ko jiite fukkeelu marché ak juróom benn mooy marché Daaru Marnaan ki ko jiite mooy Sàmba Jóob fukkeel bi ak juróom ñaar mooy syndicat ku ñuy wax Moorloo mooy ki ko jiite fukkeelu marché bi ak juróom ñett mooy marché Gaar bu Ndaw ku ñuy wax Malick Ndooy mooy ki ko jiite fukkeelu marché bi ak juróom ñeent mooy Mbaar ya ku ñuy wax Jibi Ba mooy ki ko jiite ñaar fukkeelu fukkeelu marché bi mooy marché Maam Moor Jaara ku ñuy wax Fàllu Diba mooy ki ko jiite ñaar fukkeelu marché bi ak benn mooy marché Ummul Xuraa ku ñuy wax Jaaja Géey mooy ki ko jiite ñaar fukkeelu marché bi ak ñaar mooy marché Maam Jaara ku ñuy wax Moustapha Géey mooy ki ko jiite ñaar fukkeelu marché bi ak ñett mooy marché Ocass 2 ku ñuy wax Abdou Diop mooy ki ko jiite ñaar fukkeelu marché bi ak ñeent mooy marché Ngiraaneen ku ñuy wax Daouda gay mooy ki ko jiite ñaar fukkeelu marché bi ak juróom mooy marché Touba Guédé ku ñuy wax Modou Lay mooy ki ko jiite wàllu njënd njaay dëkk dox na ci nag jéego bu takkoo takkoo takku lu tolloo ñeenti daral wala juróomi tim am na ci dëkk bu seel bii nag di Touba ñu man cee ràññee daral gi ñu tudde daralug Baxdaad gi daral gi nekk kër kàbbu daral gi nekk nag ci Touba Ndindi daral gi nekk ci mbaari Madiyaana ya ak daral gi nekk nag ci yoonu Daaru Muxti wi ci dëkk bii nag di Misra ak yeneen nag yeneen i daral nag yu ndaw nag yu nekk nag ci dëkk bi lu tolloo juróom-ñaar fukki boulangerie yi tim am nañ fi ñu bootu nag ci génn kuréel gu ñu sos ci atum 1999 ñu tudde ko daayiratul munaawal xuyóor ku ñuy wax Moustapha Jaxate nag moo ko jiite woon ca jamono jooju ginnaaw boulangerie yooyu fi am moo xam yeneen entreprise yi nag yi nekk nag ci Touba moo xam assurance moo xam société yi moo xam banque yi lépp loo xam ne nii ñi ngi koy liggéey société ba koy liggéey xelam nag du dem fenn nag fu du Touba loolu moo tax nag bépp société bu nekk nag ci àdduna bi rawatina nag ci réew mi nag di Sénégal am nga dépôt nag ci dëkk bii nag di Touba moo tax nag société bu ne la ngay liggéey direction ba nag di Touba moo ëpp doole fopp nag la ngay liggéey direction ba di faneen ku weddi laa jël bu ñu xëyee nag danañ soxla nag transport muy dem ak dikk nag ci wàllu dem ak dikk nag Touba nag dox na ci jéego boo xam ne nii wute nag lool nag bi ko Seexul Xadiim nag di sanc nag ci 1888 ndax boobakat kuñ masaa di yónni da ngay dox wala nga waru fas wala daal nga fexe ba dem Touba nag am nag transport bu njëkk ci liñ tudde nag ak saxaar saxaar gi nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke moo ko fi indi saxaar gi njëkk a ñëw Touba mi ngi fi njëkk ñëw nag ci date bi ci le 14 février 1931 ci gaar bi nga xam ne moom lañ liggéeyoon ci Touba di gaar bu mag ñaareelu gaaram waaye gaar bi nag cheikh mamadul faadal mbàkke moo ko fi defoon sababu def ko fi nag gaar bu mag bi dafa sori woon ak jumaa ji te marchandise mi ñu doon wàcce wala bagage yi ñu doon wàcce ngir mu ñëw ci jumaa ji ngir mu dul faadal mbàkke yërëmoon di taxoon na nag mu dolli waatoon nag areeb gaar bi ba mu gën a jege si nag jumaa ji muy fi ñu tudde nag gaar bu ndaw waaye nag gaar bu ndaw doon ab gaar spécial waaye nag ab jàllukaay la woon boo xam saxaar gi bu ñëwee yëpp ay bagage mën naa jàll foofu wàcce ko doog dëppaat nag ñëw gaare nag ci gaar mag Touba ñu daa wax ne am na ñaari gaar waaye benn gaar la amoon akub jàllukaay moo tax ba nëgë ni ñuy wax gaar bu mag ak gaar bu ndaw waaye gaar bu mag bi mooy gaar bi lool loolu itam nag tax na nag ci côté transport bi nag wéy nag di am ay jafe-jafe ba ni fi oto yi ñëwee ak sareet yi gaaraasi sareet yi nag ñi ngi ko xayma nag ci juróom benn fukki gaaraasi sareet ak benn nag yoo xam ne am na nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba gaaraasi sareet yi nag nii la tëddee gaaraas bu njëkk bi mooy marché Ocass ndaamaatu ñaareelu gaaraas bi mooy marché Ocass ndaamaatu ba tey bii nag sareetu fas la ci des sareetu mbaam la Ocass usine ba ñeenteelu gaaraasu sareet bi am nag mooy marché Ocass daral ga kër Serigne Ñaan Diop juróomeelu gaaraasu sareet nag bu am nag mooy marché Guédé Baxdaata juróom benneelu gaaraasu sareet nag mooy marché Ocass Sandika juróom ñaareelu gaaraasu sareet nag mooy marché Ocass tëli bu bees juróom ñetteelu nag mooy marché Ocass jàkkay Serigne Mbay Njaay juróom ñeenteelu gaaraas nag mooy rond-point gaaraasu Dakar jàkkay Serigne Cheikh Saaliw fukkeelu gaaraasu sareet nag mooy gaaraasu dakaar ngiraa neen fukkeelu gaaraasu sareet bi ak benn mooy corniche su njuga mbaari madiyaana yi fukkeelu garage sareet bi ak ñaar mooy tabla bagage bi nekk ci garage dakaar Dakar danañ taxaw tuuti nag ci garage bii nag di fukkeelu garage bi ak ñaar nekk itam nag ci garage yu Dakar te ñu tudde ko tabla bagage ay sareet la nag yu fay taxaw waaye nag amuñu nag benn décision nag bu ñuy jëm lu dul nag client bi leen jël moom moo leen di wax nag fa mu jëm moo tax nag amul arrêt nag buñ ne fa lay teere ji li ko waral nag mooy garage sareet bii ñu tudde tabla bagage ay sareet la nag yu nekk ci garage Dakar di fa taxaw waaye nag client bi ñëw yor ay bagage bu leen jëlee nag moom mooy xam fu neex mu yóbbu leen fa ñu tudde ko nag tableau bagage ab arrêt la nag ci arrêt sareet yi fukkeelu garage ak ñett nag mooy sapeur pompier guy yu sew fukkeelu garage ak ñeent mooy sumpuga daaru marnaan fukkeelu garage ak juróom mooy daaru marnaan ndaam fukkeelu garage ak juróom benn mooy marché maam binta daaru tanzil fukkeelu garage ak juróom ñaar mooy marché okas ak juróom mooy marché okas gede fukkeelu garage ak juróom ñeent mooy marché okas daarul minnan ñaar fukkeelu garage place nag mooy mbaari madiyaana ya garage yu daaru ñaar fukkeelu garage ak benn mooy daaru xuddoos forage ñaar fukkeelu garage ak ñaar mooy daaru xuddoos HLM 1 ñaar fukkeelu garage ak ñett mooy daaru xuddoos taliba première garage ñaar fukkeelu garage ak ñeent mooy marché daaru xuddoos kër wele ñaar fukkeelu garage ak juróom mooy daaru xuddoos première dararga ci ndaamaatu ñaar fukkeelu garage ak juróom benn marché occas yoonu daaru raxmaan ñaar fukkeelu garage ak juróom ñaar fukkeelu garage ak juróom-ñett mooy daaru marnaan guy ziyaar ñaar fukkeelu garage ak juróom-ñeent mooy daaru marnaan sexaw ga fanweereelu garage bi mooy ngiraaneen quartier maam jaara fanweereelu garage bi ak benn mooy mbusoobe firdawsi fanweereelu garage bi ak ñaar mooy ngiraaneen aree baare siise fanweereelu garage bi ak ñett mooy marché occas garage daaru muxti fanweer bi ak ñeent ci wàllu garage mooy marché occas teenu maam cheikh fanweer bi ak juróom ci wàllu garage mooy ngiraaneen tablo njenne fanweer bi ak juróom benn ci wàllu garage mooy marché occas new ga fanweer bi ak juróom-ñaar ci wàllu garage mooy marché occas jàkkay sëriñ Cheikh Saaliw fanweer bi ak juróom-ñett ci waaru garage mooy corniche su njuga jannatul maxwa fanweer bi ak juróom-ñeent ci wàllu garage mooy rond-point garage yu daaru ak kër suñ Cheikh Mati Lay ñeen fukkeelu garage bi mooy ngiraaneen sexaw ga ñeen fukkeel bi ak benn mooy tali bu bees mbu soobe ñeen fukkeel bi ak ñaar mooy garage yu marché occas ñeen fukkeel bi ak ñett mooy garage yu daaru muxti njaane ñeen fukkeel bi ak ñeent mooy garage daaru muxti Moxti hôpitalu Jéemul ñeen fukkeel bi ak juróom mooy garaasu Daaru Moxti marché Guédé ñeen fukkeel bi ak juróom benn mooy marché Ocass Kër Ñang ñeen fukkeel bi ak juróom ñaar mooy marché Daaru Xuddoos HLM bitigu Tafa ñeen fukkeel bi ak juróom ñett mooy Ngiraaneen ñaari Baay Faal ñeen fukkeel bi ak juróom ñeent mooy rond-point garage yu Daaru Xaymaya juróom fukkeelu garage bi mooy Daaru Marnaan Sanki Sëriñ Saaliw juróom fukkeelu garage bi ak benn mooy garage yu Dakar Tablo Ajjana juróom garage bi ak ñaar juróom fukkeelu garage bi ak ñett rond-point yu njuga jannatu jàkkay Cheikh Béthio juróom fukk ak ñeent ci wàllu garage mooy corniche gede Guédé Hizbu Tarxiya juróom fukkeel bi ak juróom mooy poulailler Tundóodi juróom fukkeel bi ak juróom benn mooy ñaari pënu domine ba juróom fukkeel bi ak juróom ñaar mooy mbaari Madiana kàdd ga juróom fukkeel bi ak juróom ñett ci wàllu garage mooy mbaari Madiana ya kër Serigne Cheikh Mati Lay juróom fukkeel bi ak juróom ñeent mooy daaru marnaan barabba juróom benn fukkeelu garage bi mooy daaru marnaan olom ga juróom bi ak benn ci wàllu garage garage mooy daaru marnaan péncum mbay wàdd lii nag moo fi am nag ci wàllu garage nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba moo xam garage sareetu fas ak garage su sareetu mbaam juróom benn fukki garage yooyu nag ak benn fukki yi ak benn yu sareetu mbaam lañ juróom fukki yi nag yu sareetu fas lañ mbaam yi nag ñi ngi toll ci juróom ñeenti téeméeri mbaam ak ñaar muy 902 yoo xam ni saa bu ñu xëyee nag danañ yabe cib garage nag demitim taxaw cib garage fas yi nag ñi ngi toll ci 11 367 muy fukki junni fas ak benn ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom juróom-ñaar yoo xam ne itam saa bu ñu xëyee nag danañ taxaw nag ci juróom fukki garage yi yabe cib garage dem teere ji itam nag cib garage ginnaaw sareet yooyu yeneen xeetu oto nag yuñ tudde ay tata itam nag am na nag ci dëkk bu sell bii rek di Touba ñëw itam nag dolleeku nag ci transport bi tata yooyu nag ñu ngi ko xayma woon nag ci téeméeri tata ak juróom fukk direction yi daw nag nii la muy ligne 1 mooy daw diggante Mbacke ak Saam Jaxate ligne 2 mooy ba ci Jannatul Maxwa ligne 3 bi mooy daw Aliya ak Daaru Rahmaanu Sëriñ Cheikh daaru raxmaan ligne 4 bi mooy wër nag lii di corniche bi ligne 5 bi mooy daw kër kàbbu ak baxdaata ligne 6 bi mooy daw tuubaa kayal ak tuubaa ndindi ligne 7 bi mooy daw foraasu yoonu daaru ak olom ga ligne 8 bi mooy daw madiyaana ak firdawsi ligne 9 bi mooy daw tundoodi ak saamuk sëriñ baara xuréja ligne 10 bi mooy daw ngaabu ak isbu tarxiya fukki ligne yooyu nag ñoo fi am nag ci wàllu transport di dëkk bu sell bii nag di Touba ñu toll itam ci téeméeri oto ak juróom fukk lu tolloog fanweeri garage taxi ak benn nag ñoo ci dëkk bu sell bi nag di Touba ñu man caa ràññee gaaraasu taxi bi nekk ci jumaa am na gaaraasu taxi itam nag bu nekk nag ci péncum daarul xuddoos mi am na gaaraasu taxi bu nekk ci corniche su jàkkay sëriñ Cheikh Saaliw am na gaaraasu taxi itam bu nekk ci jannatul maxwa mooy ñeenteelu gaaraas bi juróomeelu gaaraasu taxi bi mooy bi nekk marché Maam Binta juróom benneelu gaaraasu taxi bi mooy bi nekk ci Touba Njaareem juróom ñaareelu gaaraasu taxi bi mooy bi nekk kër sëriñ Amsa ci ancien gaaraasu Dakar bi juróom ñetteelu gaaraasu bi mooy bi nekk Olom ga kër sëriñ Touba juróom ñeenteelu nekk total fukkeelu garage taxi bi mooy bi nekk ngiraanin fukkeel bi ak benn mooy bi nekk tëli bu bees fukkeelu garage taxi bi ak ñaar mooy bi nekk yoonu daaru raxmaan fukkeelu garage taxi bi ak ñett mooy bi nekk corniche sëriñ moodu fukkeelu garage taxi bi ak ñeent mooy bi nekk hôpitalu ndaamaatu fukkeelu garage taxi bi ak juróom mooy bi nekk garage jolof fukkeel bi ak juróom benn mooy bi nekk corniche su daara fukkeel bi ak juróom ñaar mooy bi nekk marché gede fukkeel bi ak juróom ñett mooy bi nekk hôpitalu faal ci gede fukkeel bi ak juróom ñeent mooy bi nekk corniche su belal ñaar fukkeelu ñaareelu gaaraasu taxi bi am ci Touba mooy bi nekk ci gaaraasu Daaru Muxti ñaar fukkeel bi ak benn mooy bi nekk Madiana ñaar fukkeel bi ak ñaar mooy bi nekk première garage ci hôpitalu Njaay ñaar fukkeel bi ak ñett mooy bi nekk Aliya ñaar fukkeel bi ak ñeent mooy bi nekk marché Garba ñaar fukkeel bi ak juróom mooy bi nekk arrêt Sexaw ga ñaar fukkeel bi ak juróom benn mooy bi nekk ci poste contrôle bi jàkkaarloo kër Sëriñ Mouhamadan Jobbe ci marché Ocass ñaar fukkeel bi ak juróom ñaar mooy bi nekk Touba 28 ñaar fukkeel bi ak juróom ñett mooy bi nekk hôpitalu Jéemul nekk ci clinique bi jàkkaarloog tokkoorub sëriñ Cheikh Gaynde Fatma fanweereelu garage bi mooy bi nekk ci gaar bu ndaw fanweer bi ak benn mooy bi nekk ci station Daarul Xuddoos bi fanweeri garage ak benn yu taxi yi nag ñoo am ci dëkk bu sell bii nag di Touba taxi yi nag biñ leen xaymaa ñu ngi toll nag ci 839 taxi muy juróom-ñetti téeméeri taxi yi ak fanweer ak juróom-ñeent ginnaaw taxi yooyu ñu leen limal dëkk bu sell bii di Touba itam am na li ñu tuddee ay camion muy xeetu oto yoo xam ne itam dañuy tibb suuf di ko indi ci dëkk bu sell bii di Touba moo jaare tabax wala képp ko am looy liggéeyloo loo xam ne ni camion mën na koo roñ nga jël ko di ko ca roñ camion yooyu ñu tudde ay benn nag ñi ngi ko xayma nag ci téeméeri benn ak ñaar fukk ak ñett muy 123 benn ñoo am ci dëkk bu sell bii nag di Touba ginnaaw xeetu taxi yi ak camion yi am na beneen xeetu transport nag buñ tudde Mbàkke Touba ci dëkk bu sell bii nag di Touba oto yooyu nag seenub lim mi ngi toll ci ci téeméeri oto ak ñeen fukk muy téeméeri Mbàkke fukk di 140 ba tey nag ci côté transport am oto nag yi ci dolleeku mu yiñ farsa te nit ñi nag gënoon koo xam nag ci ay njaganjaay wala nag li ñu tudde ay muus nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba wala ay oto gëla-gëla garage yi nag nii la tëdde ci Touba marché Ocass yoonu daaru ñaareelu garage bi mooy marché Ocass forage yoonu daaru ñetteelu garage bi mooy marché Ocass Aliya ñeenteelu garage bi mooy marché Ocass Madiyana juróomeelu garage bi mooy marché Ocass Daaru Tanzil juróom benneelu garage bi mooy marché Ocass Guédé juróom ñaareelu garage bi mooy marché Ocass Tundóodi juróom ñetteelu garage bi mooy marché Ocass Ndindi garage bi mooy marché Ocass Mbàkke Baari fukkeelu garage bi mooy marché Ocass Sexaw ga fukkeelu garage bi ak benn mooy Sanki Daaru Salaam marché Ocass fukkeelu garage bi ak ñaar mooy marché Ocass ñaari punu fukkeelu garage bi ak ñett mooy marché Ocass Kër Baay Laata fukkeelu garage bi ak ñeent mooy marché Ocass marché Maam Binta fukkeelu garage bi ak juróom mooy garage Daaru Njaane ba Mbusoobe fukkeelu garage bi ak juróom benn mooy marché Ocass Kër Sëñ Ñaan Jóob fukkeelu garage bi ak juróom ñaar mooy marché Ocass ñaari punu ba ngi gis ga fukkeelu garage bi ak juróom ñett mooy garage Dakar Sexaw ga fukkeelu garage bi ak juróom-ñeent mooy corniche su njuga bi mooy madiyaana garage yu Dakar ñaar fukkeelu garage bi ak benn mooy madiyaana saam ñaar fukkeelu garage bi ak ñaar mooy daaru marnaan olomga ñaar fukkeelu garage bi ak ñett ku wax oto yooyu wax dëkk bi nim développé ci wàllu transport ku ne itam dana xam ne danañ soxla itam nag li jëm nag ci wàllu carburant dëkk bu sell bi nag di Touba ay station nag am na ci station yi takkoo takkoo takkoo takku waaye nag ci xayma biñ amoon ci atum 2010 station yi newoon ci dëkk bu sell bi di Touba Touba nag nii la tëddee muy total bi nekk ci rond bu Mbàkke Bawal ñaareelu station bi mooy sel bi nekk ci yoonu Mbàkke Bawal te Serigne Mass Diop moom ko ñetteelu station ci dëkk bu sel bi di Touba mooy Elton bi nekk ci rutu Mbàkke Bawal wi ñeenteel mooy total bi nekk ci yoonu Mbàkke wi te Marsi la moom ko juróomeel bi mooy station Olivia bi jàkkaarloog arrondissement bu Ndaam bi juróom benneelu station ci dëkk bu sel bi nag di Touba mooy station Elton bi bi nekk ci Daaru Marnaan dend ak nag kër Serigne Modou Mbàkke juróom ñaareelu 8 juróom-ñetteelu station bi mooy oryx bi bi nekk ci corniche ndaamaatu bi soo jógee nag ci post contrôle bi juróom-ñeenteelu station bi mooy station bi nekk ci corniche ndaamaatu bi ba tey boo jógee ci poste contrôle bi fukkeelu station bi am ci dëkk bu sell bii nag di tuubaa mooy station bi nekk ci rond Daara Jolof bi fukkeel bi ak benn mooy bi nekk ba tey itam ci rond Daara Jolof bi benn bi dafa nekk sa loxo ndeyjoor benn bi nekk itam sa loxo càmmooñ fukkeel bi ak ñaar ci wàllu station ci dëkk bu sell bii nag di Touba bi nekk ci gaar bu ndaw di station Sagar Gueye bi fukkeelu station ak ñett ci dëkk bu sell bii nag di Touba mooy bi nekk ci Touba Daarul Xuddus ba tey Sagar Gueye mooy ki ko moom fukkeelu station ak ñeent ci dëkk bu sell bii nag di Touba mooy bi nekk ci rutu Daaru Moxti bi ba tey Sagar Gueye ki ko moom fukkeelu station ak juróom ci dëkk bu sell bii nag di Touba mooy nekk ci rutu Daaru Moxti bi ku ñuy wax Ibra Seck mooy ki ko moom fukkeelu station ak juróom benn ci dëkk bu sell bii nag di Touba mooy bi ñu tudde station Al Azhar bi nekk ci rutu Daaru Moxti bi fukkeel bi ak juróom ñaar mooy bi ñu tudde station Total ba tey mu nekk tim ci yoonu Daaru Moxti bi ku ñuy wax Dame Sylla mooy ki ko moom fukkeel bi ak juróom-ñett station Total OL la mooy bi nekk ci rutu Daaru Moxti bi fukkeel bi ak juróom-ñeent mooy station bi ñu tuddee GFM nekk itam ci rutu Njigo Kebe bi ku ñuy wax Sagar Guèye ba tey mooy ki ko moom ñaar fukkeelu station bi bi nekk ci diggante garage Dakar ak rond-point Jannatu bi ñaar fukkeelu station ak benn ci dëkk bu sell bii nag di Touba mooy bi nekkoon ci Hizbut Tarqiyyah wala bi nekk nag ci Hizbut Tarqiyyah ñaar fukkeel bi ak ñaar bi nekk Aliya ak yeneen ak yeneenu station nag yoo xam ne nii itam nag am na ci dëkk bi dix ñaar fukki station ak ñaar yi nag ñoo amoon ci dëkk bu sell bii nag di Touba ku wax Touba nag xam ne kon mbooloo mi ngi fi ginnaaw buñ sañcee dëkk bi saa buñ ma saa soxla nag lii di ndox ci dëkk yi wër tuubaa nag lañu koy wuti ji moo xam Mbàkke Bawal ba Njaareem wala ci yeneen dëkk yi nga xam ne nii daal ñoom ñoo wër dëkk bu sell bii nag di Touba mu gi nag la ko baax ki Sëriñ Touba Xaadim Rasul bënnub teen ci ndigal lum joxoon jàmbaaram ja Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ muy teen biñ tuddee Aynu Rahmati ginnaaw teen boobu nag yeneen i teen itim nag am na fi amee forage am bu njëkk ci atum 1948 boobaak léegi nag forage yu takkoo takkoo takkoo takku nag mi ngi bi ñu toll nag ci ñaar fukki forage ak ñeent yoo xam ne nii nag ñoom ñooy màndal nag waa dëkk bu sell bi nag di Touba forage yi nag ñu mën caa ràññee forage bi ñu tudde F1 muy forage seex Cheikh Abdou Lahat Mbacké bi nekk nag ci wetu garage Belal bi foofu itam baneen forage maa ngi fa muy bi ñu tudde F2 ndax ci benn bërëb boobu ñaari forage moo fa nekk ñetteelu forage bu nekk ci dëkk biir di Touba mooy forage yu ñeenteelu forage forage bu nekk ci dëkk bu sell bii nag di Touba mooy forage wu Ndaamaatu juróomeelu forage mooy forage bi ñu tuddee Kër Ñang juróom benneelu forage mooy forage bi ñu tuddee Xayra wala forage bi nekk nag ci Touba Xayra juróom ñaareelu forage ci dëkk bi mooy bi ñu tuddee f sis Biche mooy forage bi nekk ci dëkk bii di Saam juróom-ñetteelu forage mooy forage F7 ñu gën koo xam ci Ngonaan juróom-ñeenteelu forage mooy forage bi nekk nag ci yoonu Daaru Moxtu wi fukkeelu forage ci dëkk bu sell bii nag di Touba mooy F9 dëkk bi nag di daaru xaddim ci yoonu Touba belal wi fukkeelu forage ak benn mooy f di Touba guy mbind fukkeelu forage ak ñaar ci dëkk bu sell bii nag di Touba mooy forage bi nekk ci université baylaat bi fukkeelu forage ak ñett mooy forage bi nekk ci ndaam daaru marnaan fukkeelu forage ak ñeent mooy forage yu njuga kebe bi fukkeelu forage ak juróom mooy forage bi nekk ci hôpital Matlaboul Fawzeyni fukkeelu forage bi ak juróom benn mooy forage bi nekk ci Al Azhar fukkeelu forage bi ak juróom ñaar mooy forage bi fukkeelu forage bi ak juróom-ñett mooy forage bi nekk Tundóodi fukkeelu forage bi ak juróom-ñeent mooy forage bi nekk ci yoonu njurul wi ñaar fukkeelu forage bi ci dëkk bu sell bii nag di Touba mooy forage bi nekk ci Touba Arafa ñaar fukkeelu forage bi ak benn mooy forage bi nekk nag ci ay Aynu Raxmati ñaar fukkeelu forage bi ak ñaar mooy forage bi nekk nag Jannatul Maxwa ci diggante marché bi ak jàkkay Cheikh Béthio ñaar fukkeelu forage bi ak ñett mooy forage u Sëriñ Mbuub bi moo nekk nag ci dëkk bi ne Daaru Raxmaanu Sëriñ Madiba Silla forage bi ak ñeent mooy forage bi nekk ci ndindi ndigal ñaar fukki forage ak ñeent yooyu nag am ci dëkk bu seeli bii di Touba génn kuréel nag la sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke taxawaloon ci bëccëgu ñaar fukki fan ak benn ci mois de mai ci atum 2016 tudde ko Aynu Rahmati kuréel googu nag ku ñuy wax sëriñ Cheikh Alioune Mbacke di doomu sëriñ Alioune Mbacke moom Cheikh Modou Moustapha Mbacke la sëriñ Saliou Mbacke tegoon ca bopp ba kuréel gi nag mujj nañ soppi tur wa tudde ko Maawu Rahmati ku wax ñaar fukki forage na fa dëkk boobu nag war naa sécurité sécurité bi nag suñu delloo ci 1888 seexul xadim nag ma nga doon ñaan ci xasida bii nag di Matlabul Fawzeyni suñu boroom may ko lu aar nag dëkk bu sell bii ci bépp côté boo xam ne ni aw lor nag ma ngi fay jóge moo xam ci rab àll yi moo xam ci ñi nga xam ne dañuy ñaan ngir sànq doomu aadama moo xam dëgg yi jamee moo xam bépp loraange boo xam ne mën naa jóge daal ci dara ñëw laal doomu aadama seexul xadim mi ngi ko doon ñaan ci Matlabul Fawzeyni suñ boroom musal ko ci ñi nga xam ne nii dañuy yeewoo ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa Mbàkke toogee xalifa ci atu 1927 ca at ma ca topp ca mois de septembre ba muy ci 1928 titre foncier na ngir wéel nag ñaanuk Seexul Xadim googu muy aar Touba ba kenn du ci man dara moo xam nitug nguur moo xam nitug àdduna direction bi daw ci Touba ñi yilif Touba ñoo koy doxal moo tax Touba di titre foncier moo xam bépp service bi fi ñëw itam ñu tudde la spécial ndax wuute nga ak faneen ci réew mi sécurité boobu nag moom mooy dox nag ba sapeur pompier ay lakk ak yenn ci tolof-tolof yoo xam ne nii dana day dal doomu aadama yi te loola itam nag liggéey yëpp sapeur pompier am na ci solo quand sapeur pompier bi fi njëkk ñëw nag ci la fi ñëw muy 32e compagnie ñi ngi ko créé nag ci benn arrêté ministériel ci atum 1996 ci ñaar fukki fan yaak juróom-ñaar ci mois de septembre lieutenant bi fi njëkk jël fonction mooy Sele Seck Mbay mi ngi jël fonction nag ci le 1er novembre ci atum 1996 ba tey ci wàllu kaaraange dëkk arrêté ministériel nag lañ signé woon décret bi ngir Touba nag am liñ tudde commissariat commissariat bu Touba nag ñi ngi ko immigré ci bëccëgu 25 mars ci atum 2005 monsieur Tamsir Diouf nag lañ fi bàyyi woon mu nekk commissaire spécial ci dëkk bu sell bii nag di Touba service d'hygiène bu Touba nag mi ngi fi ñëw ci ñetti fan ci mois de décembre ci atum 1996 ku ñuy wax Moustapha Kane moo ko jiite woon ci loi ko nag ci juróomi fan ci mois de juillet ci atum am na ci dëkk bu sell bi di Touba ñi ngi ko créé nag ci atum 1986 ki fi njëkk a jël fonction nag jiite nag gendarmerie bu Touba mooy ko ñu doon wax adjudant chef Pape Ndiaye mi ngi ko jiite ci bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom benn ci mois de mai ci atum 1986 ba tey nag ci wàllu kaaraange ci dëkk bu sell bi nag di Touba ci bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom benn ci mois de novembre ci atum 2015 bi président de la république bi fi nekk di monsieur Macky Sall taxawal na fi nag beneen camp gendarmerie ci guyu sew leet naa géy mooy ki ko jiite sécurité ba tey ci wàllu sécurité ci dëkk bu seeli bii nag di Touba police itam dolli nañ leen yeneen agent muy liñ tudde nag GMI muy groupement mobile d'intervention ngir nag ñu dolleeku nag ci police mën leen a jàppale nag ci liggéey bi ñuy def nag ci waay ñaaw téef yi nekk nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ba tey ci sécurité bi am na genn kuréel itam gu juddu ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke ñu tuddee ko Safinatul Amaan Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke nag moo ko taxawal ci bëccëgu le 14 février 1997 Serigne Abdourahmane Lo ñu gën koo xam ci sëriñ Modou Lo Ngabo la sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke nag teg ca bopp ba kër googu nag di Safinatul Amaan lépp loo xam ne nii méngoo wut ak nag doxeenu dëkk bi wala lépp loo xam ne nii nag ñaaw na ci dëkk bi seen yitte la nag ngir mu jóge fii ku wax kaaraange nag da nga tudd wér-gu-yaram wér-gu-yaram itam nag mbokkum kaaraange la Touba nag am naa ay hôpital am na itam nag li ñu tudde ay poste de santé waaye hôpital yi nekk ci dëkk bi itam nag nii la tëddee hôpital Ndaamaatu man cee ràññee hôpital Madlabul Fawzeyni man cee ràññee hôpital Sëriñ Mbacke Madina muy hôpital bi nekk na Kër Kàbbu ak hôpital bi ñu tudde Sonatel Gédé Kaw ak lu tolloog nag fukki district sanitaire ak juróom benn fukki district sanitaire ak juróom benn yi nag ñi la tëddee muy bi nekk ci Touba Mosquée bi nekk ci Touba Daarul Xuddoos ñetteel bi nag mooy bi nekk ci Touba Daaru Marnaan ñeenteel bi nag mooy bi nekk ci Touba Daaru Tanzil juróomeel bi nag mooy bi nekk ci Touba Daaru Minnan juróom benneel bi nag mooy bi nekk ci Touba Gédé juróom ñaareel bi nag mooy bi nekk ci Touba Guy Mbind juróom ñetteel bi nag mooy bi nekk ci Kër Ñang juróom ñeenteel bi nag mooy bi nekk ci Xayra fukkeel bi nag mooy bi nekk ci Madiyaana fukkeel bi nag ak benn mooy bi nekk ci Madiana 2 fukkeel bi nag ak ñaar mooy bi nekk ci Ndindi fukkeel bi nag ak ñett nag mooy nekk ci Ndoka fukkeel bi ak ñeent mooy bi nekk ci Tundóodi fukkeel bi nag ak juróom mooy bi nekk ci Touba Belal fukkeel bi nag ak juróom benn mooy bi nekk ci Touba Bogo ginnaaw wàllu kaaraange ak lii di yaram tax na itam nag dëkk bu seeli bi nag di Touba aw turam nag mi ngi jolli fu ne ndax kat murid yi kat yóbbu nañ turu Seexul Xaddim fu ne yóbbu nañ tim nag tur wii di Touba fu ne ba tax na fépp fu am murid nekk sa xel mu njëkk nag mooy wut kër Sëriñ Touba ci dëkk ba nga nekk nekk loolu itam nag tax na autorité yi nekk nag ci bitim réew wala kilifa yi nekk nag ci bitim réew kenn ku ne munoo xëy ba ngoon ci sam réew te doo fa dégg nag turu Touba loolu itam nag tax na kilifa yu takkoo takku ci àdduna bi nag ñëw nañ seet si nag dëkk boobu ñuy dégg nag ci Sénégal tam tudd Touba fan la nekk ñu man cee ràññee ci xilaaf ma Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké gouverneur général bu Afrique Ouest ñëwoon na seet si Cheikh ma Moustapha Mbacké ci xilaafaam ci xilaaf ak Cheikh Mamadou Fadal Mbacké kii di Siré Ahmadou Bello Sardono di premier ministre bu Niger itam ñëwoon na seet si cheikh Mamadou Fadal Mbacke ci xilaaf ak sëriñ Touba cheikh Abdou Lahad di Omar Bongo nekkoon président bu Gabon itam ñëwoon na itam ci dëkk bu sell bii nag di Touba Cheikhou Touré nekkoon président bu Guinée Conakry itam ñëwoon na itam ci dëkk bu sell bii nag ñu gën koo xam ci Congo ñëwoon na fi nag jaale si Ndiouga Kébé ginnaaw bu mu génnee àdduna ku ñu doon wax Abdoul Aziz Ben Salah nekkoon imaamu jumaay Medina di fi yonent bi sallallahu nekkoon na itam ci dëkk bu sell bii nag di Touba Mohamed Ali nekkoon boxeur ci réew mi itam nag di États-Unis nekkoon itam champion ci catégorie gi ñu tudde boxe poids lourd ñëwoon na itam ci dëkk bu sell bii nag di Touba ba tey kilifa yi ñëw nag dëkk bu sell bii nag di Touba Mohamed Ali Al Harakani nekkoon secrétaire général Ligue islamique mondiale ñëwoon na itam ci dëkk bu sell bii nag di Touba président bu Iran Mohamed Rafsanjani nekkoon président république bu Iran ñëwoon na itam ci dëkk bu sell bii nag di Touba Mohamed Jadal Haq nekkoon directeur itam ci dëkk bu sell bii nag di Touba ak itam suñ président yi nga xam ne nii nag ñoom ñoo nekk itam nag ci biir réew mi moo xam Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall ak yeneen ak yeneen i ministre nag ak ay ambassadeur nag yu foor nag ci àdduna bi nag ñëw nañ fii ku wax dëkkuwaay wax mbooloo xam ne itam génn àdduna itam nag munta ñàkk loolu itam tax na nag dëkk bu sell bii nag di Touba fu nit di doxe sa xel nag mi ngi xalaat soo génnee àdduna ñu la ci dëkk bu sell bii di Touba ba tax ku ci génn àdduna say mbokk nag li ñuy njëkk nag tax na Touba nag ay armeer nag am na fi nag yu takkoo takku seenub lim nag toll nag ci ñeent muy armeer yu mag yi nga xam ne nii ku baax ki Sëriñ Touba Xaadim Rasuul moo ko fi nattoon muy armeer yi wuuf jumaa ji am na yeneen armeer itam nag yuñ tudde Baqiya ci xilaaf ak Cheikh Abdou Lahad Mbàkke nag la fi amee am na yeneen armeer nag yu nekk nag ci quartier bii nag di Daaru Marnaan quartier bii itam nag di Gédé am na ay armeer ginnaaw ku tudd ay armeer tudd faatu te képp ku faatu nag ak foo man di faatoo nag xelu nit ñi nag du jëm fenn nag fu du Touba loolu nag moo tax nag Touba nag am na ay gagné ñeenti yoon muy Thiès Touba ci 1955 ba 1957 lañ ko liggéey ñaareelu yoon bi nag mooy Kébémer Touba ñetteelu yoon bi mooy Daara Touba ñeenteelu yoon bi mooy Kaffrine Touba ci biir dëkk bu sell bii di Touba itam nag bari na ay mbedd nag yuñ ci tëli waaye nag ba nëgën itam nag am na mbedd yu mag a mag mag yu kenn tëleegul waaye nag mi ngi dox nag ci wàllu développement dëkk bii di Touba nag biñ ko sancee léegi ci 1888 ak 2016 ci téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom nag la toll téeméeri at ak ñaar ñaar fukk ak juróom yooyu nag ku ñuy wax seexul xaddiim nag moo ko sancoon tuddee ko Touba moo ko moom it ci li ko dale ci a 1888 ba ci le 19 juillet 1927 ñaareelu kilifa nag gu moom dëkk bu sell bii di Touba mooy Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke moo ko yilif nag ci le 19 juillet 1927 ba le 14 juillet 1945 ñetteelu kilifa nag gu moom dëkk bu sel bii nag di moo Touba mooy Cheikh Mamadul Fadal Mbacke ibnu Xaadim Rasul moo ko yilif ci bisub 14 juillet 1945 ba le 6 10 août 1968 ñeenteelu kilifa nag gu moom dëkk bu sell bii di Touba mooy Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko yilif nag ci bëccëgug la 7 août 1968 ba le 19 juin 1989 juróomeelu kilifa gu yilif dëkk bu sell bii di Touba wala mu moom ko mooy Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacké moo ko yilif ci le 19 juin 1989 mais le 13 mai 1990 juróom benneelu kilifa gu moom dëkk bu sell bii di Touba mooy Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke moo ko yilif nag ci le 13 mai 1990 ba le 28 décembre 2007 juróom-ñaareelu kilifa nag gu moom dëkk bu sell bii nag di Touba mooy El Hadji Mouhamadou Lamine Baara Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal moom Xaadim Rasoul moo ko yilif ci bisu 28 décembre 2007 ba le 30 juin 2010 30 juin 2010 ba nëgëni di juróom-ñetteelu kilifa nag gu yilif dëkk bu sell bii nag di Touba mooy Serigne Sidil Mokhtar Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ibnu Xaadim rasul ginnaaw yéeme googu nag dëkk bu sell bii yéeme nag ci wàllu développement tax na nag ci 1980 am mbooloo ñeeño nag moo xam ne nii dañ daa boole nag seen doole ak seen kàttan di dajaloo nag saa su ne nag di seetante nag ci seen biir ñoo demoon seeti nag sëriñ Tuubaa seex Abdou Lahad Mbacké di ko wax na nag dëkk bi taalibe lañ fii tey it suñu wërsëg itam mi ngi jóge ci dëkk bu sell bii di Touba moo xam ñu koy ñaq moo xam ñu di ñu ko jox loole itam nag taxoon na nag ñu bëggoon a delloowaat sëriñ njukkal ndax màggal yiñ koy màggalal bari na lool fa bis bi nga xam ne nii nag ci la sëriñ Touba Xaadim Rasuul goroon dëkk bi nag ñuy màggal nag sancub Touba ginnaaw buñ ko waxee sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad ba noppi sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad nag nee na tekk ab diir ginnaaw bi nag la leen di wax ne bis boobu da ngeen war a màggal bis bu jara màggal la waaye nag na ngeen ma bind nag ca daayira ba daat koy tudde nag sahadatul muridina ca jataay boobu nag la sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke fobe kuréel gi tudde ko daayira sahadatul muridina sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke doon leen ca tegal ne na ngeen jël na xëytal weer wi nag di rakkaat ji ngeen di ko ca màggal moo xamoon muy taw moo xam mu naaj moo xam mu xiin moo xam muy ngelaw bis bi nag saa bu dikkaatee nag dee leen ko màggal nag sancub Tuubaa boobaak léegi nag ci 1980 ba nëga ni nag ñi ngi ko ciy màggal at mu jot ci xëytal weer wi nag di rakkaat ji gàmmu waaye balaa booba sax ñu fàttali leen lan moo waral ñeeñoo yi nag dem ci sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke nag doon ko sàkku nag bis bu ñuy màggalal ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul dañ taamu nag bis bii sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul goroon dëkk bu sell bii nag di Tuubaa ndax ñoom ginnaaw bu ñu dajaloo doon seetante nag ci ñeeño nag gu nekkoon njaareem waaye kuréel googu nag wute woon nag kuréelu Touba gi ni muy doxe ndax ñoom kuréel googu ñoom dañ daa def nag at mu jot nag ñu sant nag kii di sëriñ Touba ci luñ tudde ak màggal waaye kuréel gi nekk Touba nag ñoom dañ daa def nag saa su ne ñuy dajee nag ci seen biir ginnaaw bu kuréelu njaareem gi nag di màggal lañ bindoon leetar nag seen mbokki ñeeño yi nekk nag ci dëkk bu sell bii di tuuba délégation bi nga xam ne nii ñeeñooy Touba yi nag yabale woon nañ ko ngir mu dem njaareem nag fekki woon nag ñeeñooy njaareem yi nag ngir itam ñuy màggal bisub sant sëriñ sëriñ Moustapha taal ak kuñ doon wax sëriñ Baara Touré ginnaaw bu ñu demee nag ba gis kuréelu ngeeñooy njaareem yooyu nag doxaliin wa ñuy doxale ni mu rafete te ñoom xaalis bi ñuy dajale dañ ciy sant nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ginnaaw bu ñibbisee nag la Baara Touré mii nag bokkoon ci délégation bi ñu yónni woon ci njaareem doon xamal ay moroom yi ñeeñooy Touba di leen xamal na nag leen liitim nag jaaduwul ndax kat dëkk bu sell bii di Touba ñi ngi fii amee lu ne moo xam ci suñu ñaq nag moo xam nag ci xeet wi ñu bokk di ñeeñoo kon nag nañ soppiw doxalin roy nag waa njaareem bañ ci jógee nag lañ def délégation délégation nag dem seeti sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ña demoon nag seeti sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ca mbooloom ñeeño moom ñu ràññee ca nag ku ñuy wax Baye Ndiaga Niass sëriñ Moustapha Niass sëriñ Fara Gueye sëriñ Moustapha Seck sëriñ Mathiam caam sëriñ Mbaye Silla sëriñ Sidi Thiam sëriñ Maboussa Thiam sëriñ Baara Touré ak sëriñ Assane caam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ca mbooloo ma bu buñ eggee nag ba wax seen yéene sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci la leen joxe bis bi nag di xëyital rakkaati gàmmu ji ngir ñu di ko ci màggal kuréelu ñeeño yooyu te sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke tudde ko daayira Sahadatul Mouridina ku ñuy wax Moustapha Niass moo njëkk jiite daayira ba ginnaaw ba mu fa jógee nag ku ñuy wax sëriñ Cheikh Mbaw moo ca topp ñetteelu président bu jiite daayira ñeeñu yi di Sahadatul Mouridina mooy ku ñuy wax sëriñ Basiiru Ndiim ñeenteelu kilifa nag bu jiite daayira bii nag di Sahadatul Mouridina di daayira ñeeño yi mooy Moustapha ñas nag dafa dikkaat juróomeelu kilifa gu jiite daayira Sahadatul Mouridina bi di daayira ñeeño yi mooy ku ñuy wax Bàcc Caam juróom-benneelu kilifa gu jiite daayira Sahadatul Mouridina bi mooy ku ñuy wax Serigne Siri Thiam moo fi nekk nag ba nëga ni waaye ginnaaw daayira bi nag bu amee président actif am na nag li ñu tudde président d'honneur président d'honneur yi itam nag nii la tëddee mooy ku ñuy wax Baye Njaga Ñas ginnaaw Baye Njaga Ñas nag Serigne Basiiru Ndiim nag moo ko yore jamono jii daayira boobu di màggal sancub Tuubaa nag di Sahadatul Muridiina di daayira ñeeño yi mi ngi toll nag ci ñaar fukki section ak ñeent ñu ngi leen di ñaanal nag bu baax a baax ci darajey Xaadim Rasuul ak Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké mi ñu woon ndigal ngir nag di màggal sancub Tuubaa lañ yàlla defal ci barkeb xaadim rasuul li di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey nag dëkk bu sell bii di Touba ak xasi dëgg ci xaadim rasuul bindoon nag di mag